convergence yi ñu am dinañu fexe ba ànd ci bu ñu dajee mbëkkante bu ñu dajewul ku ci dem deuxième tour yaakaar naa ne convergence yi ñu am ku nekk di nga jàppale sa bopp donc ñun loolu la ñuy fonctionner suñuy parenage wéeruñu ko ci Ousmane Sonko wala ci Modou Diop wala ci Samba ci suñu parti ci Mor Ndiaye mi laa ci gën yaakaar ak sama parti mhm. te man bokk ci élection yi ñu génne listu candidat bu liste candidat yi génnee aussi ak xale yi ma tudd ñi ngeen di wax ay deux ans yi retiré yéen journaliste ngeen def leen investigation ngeen xool xale yi fa nekk. Mhm. bu ñu toogee dinañu xam naka la ñuy def nit mun nañ la mun nañ la sax désigner ne da nga war a bokk ci élection yi nga ne bokkuma kii lay jàppale. l'essentiel la ñu organiser pour que alternance bi nekk une alternance importante maintenant nag lu am solo nag loo xam ne lii wax naa ko ñépp alternance moom bu amul. responsabilité Pastef la. ah bon ah ci naka. ah oui rôle bi ñu joué force bi ñu am ñoom ñoo war a fexe am xarañ ba nga xam ne alternance dina am c'est leur responsabilité parce que c'est la principale force. mais tey ils ont les pieds et mains liés tey jii. mënuñu am ban ban génie la ñuy développé. fi mu nekk nii mënuñu am point et mënoo am force. représenter li nga représenter mener le combat que tu as te doo am pexe pour génn ci waay. on est des soldats des solutions existent ah c'est ma conviction. mais moo tax ma ne par rapport ak yow expérience bi déjà côtoyer Ousmane Sonko nekk son directeur de campagne en 2019 c'était pas chose aisée également gis nañu fi nga xamante ne yóbbu nga ko fa koo xamante ne c'était sa première participation à une présidentielle mu accès la troisième place c'est que équipe bi ko coaché également vous à sa tête c'était pas. du lu anodin moo tax c'est la question qui revient encore tey jii Boubacar Camara est-ce que également il va laisser Pastef dem ci noonu kese te du mën a àgg su Pastef dafay échec boobu alternance su amul yow tamit kon di nga ci participer. non responsabilité principale la pour man 2019 bi ñu nekkee di xeex ci opposition bi dafa am ñu bari ñoo xam ne bokk bokkuñu woon ci xeexu opposition bi. Mhm. bi ñu éliminer candidats yi. ñëpp dañu buubu dem soutenir <laughs> Idrissa Seck. oui ñëpp j'étais le seul homme politique. Mhm. bu soutenir Ousmane son oui à part ça il avait un autre soutien c'était Pat Atepa. Mhm. ñu ànd ma superviser campagne bi ñu am groupe jot na ñëpp jàpp ci. Mhm. ñu liggéey dañu doon wax yéen un pour cent ngeen di am. ñu def la combat parce que le discours était là et tout la ñu liggéey ko def lu ñu def. bi ñu ba ci biir ñu continuer. cette même quintessence là bi taxoon ñu ànd ba léegi mu ngi fi. ku nekk nag da nga choisir sa voie. mais loolu bu ñu ko defee ba pare bu problème amee nooy def da nga naan woy léegi comme yéen da ngeen am problème léegi ñoo leen ñoo leen jàppale ma loolu manque de respect la sax ku am problème nga ne ko yow da am problème kaay jàppale ma nit nag am problème au lieu nga jàppale ko ah, pour mu génn ci problème yi nga ne ko yow da am comme da la yow nag boo amee problème nooy bu ñu buubu woon tey tey tey waa Pastef ne man maay seen candidat suba gars yi dugal ma ci bërigo ah sànni ma géej. <laughs> mais mais mais tey waa tabax jéngu naka la ñu taxawee kon pour jàppale ko parce que gis nañu ah, ne opposition bi fi mu nekk unité de l'opposition bi nga xamante ne moom la ñu doon prôné boobu ba léegi avec Yewwi Askan Wi mu nekkoon na la principale force de l'opposition tey jii gis nañu ne ça s'est effrité ak yooyu tey jii est-ce que yaakaar nga ne la bataille de l'opposition va se poser ou va s'imposer la bataille de l'opposition dafa am benn règle boo xam ne dañ ko ci war a def ñi war a ànd ñooy ànd ñi warul ànd waruñu ànd boo àndee koo warul àndal doo leen mujj fenn loolu moo dal opposition bi da ngeen di jékki-jékki bugg unité d'action da ngeen di war a ànd ci unité d'action ci benn périmètre bu limité bu jeexee jeex na mhm. waaye man dafa am ñetti façon yoo xam ne duma ànd ak ñoom man nag ragalu ma wedde man du ma ànd ak kàkkatar kàkkatar day changer couleur mhm. en fonction de la situation mooy waa wax waxeet yeeg waa waa waa transhumance man du ànd ak kàkkatar ma ànd ak yow bu ñu bokkee yoon tam maa ngi xarat nga changer couleur ma bala fa du ànd ak bukki bukki loo leen bokk bu desee séddale mu ne leen bii bukki bii njuur bii sàmba bii maa ko moom bu desee lu dul séddoo mu jël lépp bala fa man du ànd ak bukki su may ànd ak yow maa lay bàyyi xel du ànd ak jasit jasit day ànd ak yow di la raay booy booy xef mu lay wonn parce que yéenewu la dara donc opposition ñi war a ànd ñooy ànd mm-hmm. te àndu opposition jëm présidentielle ci programme lay sukkandiku yow est-ce que euh, am na opposant est-ce que dégg nga leen ñu wax affaire ressources naturelles ak suñuy bien jamais. Hmm. est-ce que dégg nga am na opposant ñu wax affaire corruption affaire yooyu ils vont faire la même chose bu ñu ñëwee est-ce que dégg nga opposant bu la wax ne man nii laay investir pour def éducation et tout tout doo ko def am nga opposant bu la wax day def souveraineté euh, nationale ah am régler sa sa problème mu monnaie régler sa problème mu relation internationale kon bu leen ànd ñi ma mën a àndal lay àndal sur la base de principe. Mhm. léegi man li may wax nii bu dee un pour la ma jël sama un pour cent te géex bu dee dix pour cent la ma jël sama di pour cent bu dee moo ma yóbbu pouvoir moo ma yóbbu pouvoir mais man li ma diggeek nit ñi fii mhm. sama parti diggee ko programme moom lay appliqué d'accord kon euh, Kama 2024 euh, c'est l'heure des grands ensembles moom kese la wala am na ñeneen ñu bokk non non ñun moom du ñu wax li ñuy def xam naa ne daal réew mi incha allah bu ci bu yàlla nanguwul li mu maye woon ak conseil yi ñu jot mag ñi ñuy waxtaanal ak ñi ñuy waxtaanal yépp incha allah dina tegu ci loxo yu ko mun a defar équipe équipe boobu nag euh, sama bopp laa ci gën a wóolu pour jiite ko su ma ko jiitewul it ki koy jiite rek bu ñu àndee ci ay sart dinañ ko am waaye ñun population yi moom dinañ leen laaj. ñu mhm. jox ñu ko ndax nag dañ ko yelloo dañ ko mérité de. dañ ko mérité ci parcours mérité ko ci jaar-jaar mérité ko ci éthique mérité ko ci jub mérité ko ci xarañ mérité ko ci bëgg